لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابي في الله النافع قال خرج ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في بعض نواهي المدينة ومعه أصحابه ووضعوا له سفرة له فمر بهم رائي الغنم قال فسلم فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هلم يا راعي هلم يا راعي فأصب في هذه السفرة فقال له إني صائم فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومة وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم فقال له الراعي وأبادر أيام الخالية أبادر أيامي الخالية mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu dañoo jële ci naafi naafi ab mbaay yàlla la woon taalibe ibnu omar radiallahu anhu wa arda ibnu omar mooy doomu omar ibnu alxataab moo nekkoon imaamu jàkkay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jëntalu dundam dafa silma xawoon bu daan dem juma naafi moo ko daan yóbbu juma muy jiite bu daan dem jàkk naafi moo daan jàpp ci loxo bi yóbbu ko su ngeen demee ci téere téere imaamu malik bi mu bind hadis yi da ngeen fay fekk genn wàllu téere bi yëpp hadis yi ci naafi an naafi an ibnu omar an naafi an ibnu omar an rasul salallahu alayhi wa alihi wa sallam naafi moomu nee na benn bis ibnu omar dafa génn ànd ak sahaaba yi ci jamono naaj bu tàng jër waxtu njolloor ñu dem ba daj keppaar yu neex ci biir madina ci biir garabu tàndarma yi moom ibnu omar mu ànd ak sahaaba yi lenn ci ñu mu war a àndal mu ne bi mu demee ba ci digg garabu tàndarma yi ci naaj bu tàng bi ñu daal di koy lalal ay basang daal di koy indil li mu war a lekk indil ko li mu war a naan moom ibnu omar mu toog moo ngi àndandoom ak sahaaba yi ñu toog di lekk ni sa diir bu ndaw am benn sàmmkat bu leen romb gàddu ay xaram di yéeg ci montagne yi wàcc ibnu omar gis waa ji daal di koy yërëm ndax tàngaay bi ni mu métte ak montagne yi xam ngeen ne tàngaay ci ay xeer kenn du ko nettali tàngaay ci xeer kenn du ko nettali ibnu omar xool ko daal di koy yërëm ne ko yaa raayi halumma yaa raayi halumma waaye sàmmkat bi ñëwal toog fi waaye ci keppaar gi ñëwal toog fi ci suñu sijaada yi ñëwal mos ci xéewal yii ñuy mos ibnu omar am mbetteel nag ci tontu bi ko sàmmkat bi tontu kaay ci keppaar gi kaay ci xéewal yi kaay ci lii ñu tiim raay bi ne ko sàmmkat bi daal di koy tont ne ko inni saa'im dama woor inni saa'im man dama woor fa qaala ibnu umar ibnu umar ne raay bi atasuumu fi ha fi misli haada alyawmi alxaar shadid sumumahu ndax da ngay woor koor goo xam ne du farata ci bis bu tàng jër boo xam ne tàngaay bi foo ko nat wees na ko ci biir montagne yii ngay sàmm xar yi lu ko jar lan moo la ko jaral bis bi ni mu tàngee tey ngay sàmm ci biir montagne yi ci biir xeer yi bés bi tàng ñëwal kaay lekk lu tax ngay woor bés bu tàng jër bi mu ne ko moom sàmmkat bi allahu akbar damay woor bés bu tàng bi fa qaala lahu ay wallah ubaadiru ayaami alxaaliya ibnu omar xanaa xamoo dama am ay bis yu ma passé bés yi dama ko yàqoon bés yooyu laa bëgg a réparé tey dama yàqoon ay bés bés yooyu laa bëgg a réparé bés yu ñu yàq mooy lan mooy dafa am ay waxtu yoo xam ne ay bés yoo xam ne ay guddi ay bëccëg yoo xam ne man ak sama borom xam nañ ne bis yooyu jaamuwuma ko ci woon te bis yooyu dem nañ perte naa ko looloo tax bés yooyu laa bëgg a dabaatal yéen sama mbokki jullit yi woor tey mbaa ñun tamit danañu dabaatal lañu lañu perte est ce que ñoo ngi bàyyi xel ne war na noo réparer ay guddi est ce que ñoo ngi bàyyi xel ne war na noo réparer ay bëccëg est ce que ñoo ngi bàyyi xel ne war na noo réparer ay fan yoo xam ne kenn ku nekk ci ñun fi nga toog wóor na la wóor yàlla ne am na fan yoo yàq am na guddi yoo yàq am na bëccëg yoo yàq est ce que ñoo ngi préparé réparé bis yooyu comme ni sàmmkat bi jëlee ay bëccëg di ko réparé ci waxtu yoo xamante ne kenn talul jaamu yàlla mooy waxtu tàngaay waxtu coono mu nekk sàmmkat nekk ci ay montagne nekk ci àll moom dong ak boroomam waaye mu woor ba ñu woo ko kaay lekk mu ne leen dama woor allahu akbar ibnu omar ne ko fa qaala lahu ibnu omar wa huwa yaxtabiruhu ibnu omar di ko natt di ko defal loolu ñu naan test waaw hal laka an tattabiina an tabiana bi shaa min ganamika waaw léegi xar yi moom ku ko moom tee ngi jee jaay benn xar ñu jox la léegi léegi xaalis bi ba pare rey ko léegi léegi fees ko léegi léegi nga lekk ci nga am ñaari bénéfice jaay ñu benn xar ñu fay la léegi rey xar bi léegi fees ko léegi lakk ko léegi nga lekk ci même bu fekkee da ngay ndogu sax di nga ci lekk mooy am nga xaalis am nga benn benn xeer ñaari picc am nga xaalis am nga biir bu fees sàmmkat bi daan ne innaha ganamu sayid sayid yi gàtt yi day moomuma ko sama kilifaa ko moom fa qaala lahu ibnu omar waaw soo demee sa kilifa gi bu la laajee nga ni ko till yi ñoo fàddu benn loolu kay amul problème xaas bi nga jël def sa poos sa biir fees na sa waay nga jël xaas bi def sa poos bu la nee ana xar bi rek nga ni ko de till yi ñoo ko rey sànni naa ko foofu bàyyi naa ko tan yaag céeli yi ñu koy lekk allahu akbar ibnu omar daal di am mbetteel lu mu foogul woon ci sàmmkat yaakaaroon nañ ne kii kilifa diine la waroon doon wala borom xam-xam bu naan alquran jeexal sahih buxaari muslim abu daawud tirmisi nisaa'i ibnu maaja sàmmkat bi daal di bett ibnu omar ne ko ayna allah ana yàlla su ma jaayee xar ma ni ko till yi ñoo ko lekk parce que kenn nekku fi ma jël xaalis bi def sama poos ak sama biir bu fees ayna allah ana yàlla mbokk yi sunu xutba tey mooy ayna allah mooy ana yàlla ayna allah baat bi démb daraan rek la lu baree bari ku nekk ci ñun na jàng quran lu ñu suñu borom subhanahu wa taala wax ci suratul balad لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أنا يعني يا كان يا لجسولين أيحسب أن لم يره أحد بين خلبو غور دب دوجي مارشي bi mu duggee ci marché bi xam ngeen marché mooy dëkkuwaayu seytaane ku bëgg a xam fu seytaane dëkk rek demal marché bi mu duggee rek mu gis xale bu jigéen bu rafet ay bëtam ne jajj ci xale bi mu ne na xool fi mu nee na xool rek xelam dem ci benn aaya alam yaalam bi anna allaha yara xanaa xamuloo ne yàllaa ngi lay gis alam yaalam bi anna allaha yara muy jàng aaya bi alam yaalam bi anna allaha yara bët yi di tuur rongoñ mu sëgg ay batam ci suuf jël ay bagaasam ñibbi ba kër ga doog a siggi di jàng aaya bi ba ñëpp ñëw ñu ne ko lan la mu ne tey mooy bis bi nga xam ne yëg naa am naa ngëm yàlla ci sama xol loolu mooy muraqaba nga xam ne foo nekk yàllaa ngi fa alam yaalam bi anna allaha yara ayna allah looloo rek la woon démb problème yi moo taxoon dëkk bi jag moo taxoon nit ña normal moo taxoon liggéey ya jub moo taxoon amuñu woon police amuñu woon gendarmerie amuñu woon douane amuñu woon eaux et forêt amuñu woon benn takk der lépp jub ci ay baat rek ayna allah yëf yi normal jàngeen xis Umar ak jaaykatu soow ba commerçant commerçante bi daan rax soow mi nga xam ne soow mi da doon jar mu bis ñaari paan la doon jaay mu ne doom ji nañ ko def ñetti paan nuñ koy defee ñetti paan mu ne ko sotti ci ndox soo ci sottee ndox soow mi xormet buñ demee ñu jaay ko doom ji ne ko ah loolu de yaay Omar amirul muminin da koy tere bu nu yëgee du baax de yaay ji ne ko def ci ndox Omar nekku fi doom ji ne ko in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana bu dee Omar gisunu yàlla mi sàkk Omar mum nii gis nga soow moomu keroog noonu la soow mi normale soow mi police ñëwul gendarmerie ñëwul kenn ñëwul soow mi normal Omar ibnul Xattaab bi mu déggee baat yooyu dugg ci nopp bi fekk mu ngi ci keppaaru kër gi ndax moom nuroowul ak sunu président tey yi da ngay nekk président dem tëdd di nelaw sa kër di tàkk courant kër ñeneen ñu coupé ñu defal la sécurité ñeneen ñi ñu leen di agressé semaine bii ñu nekk nii muy àllarba dama tafsir fii ba pare am rendez-vous aéroport ak benn borom xam-xam bu mag bu ma war a jox ay téere ma woo ko téléphone génn fii jotuma ko ma dem ba sama kër woo ko jotuma ko comme amoon naa moom rendez-vous maa ngi koy woo jotuma ko ma ni naa dem rek parce que foo sa rendez-vous musiba la ma jël taxi. ñëw wàcc këram fekk ko mu toog nit ñi wër ko mu nuyu ko toog ma ne ko maa ngi lay woo jotuma la mu ne ma dañ ma agressé fii démb sama buntu kër fii lañ ma dóor jël sama portable fii ci sama buntu kër maa ngi ndog ba pare tëdd ci sama sama njaganaay taalal samay tànk di wuyu téléphone waaw fuñ jëm Omar moom jamonoom da doon def moo yoroon sécurité bi waxuma la dafa wut ay nit nañ yor sécurité waaye Omar moo yoroon sécurité bi guddi du nelaw day wër saay saay si ak bandi yi di jëflante ak ñoom Omar noonu la doon wëree ci kër gi ba dégg xale bu jigéen bi moog yaayam ñuy wax ci mbirum soow bi Omar bu mu leen nuyoo ba ñu waxee loolu ba pare Omar dafa fëgg kër gi ñu ubbi mu ne yaay ji suba yaa xale bu jigéen bi fekk si leen ma ñu ne ko fan xamuñu ne kii mooy Omar de mu ne kër amirul muminin ñoom ñaar fajar ñu xëy yaay ji ñëw fekk mu toog yaay ji tiit ndax xam na kan mooy Omar Omar daal di woo doomam yu góor yi nee leen xale bu jigéen bi laa bëgg ngeen takk ngeen def ko soxna bu fekkee amul borom kër xale bu jigéen bi laa bëgg ngeen denc yéen samay doom kenn seen amul soxna xale bu jigéen baa ngi nii wax leen xale yu góor yi commencé yox yoxi Omar ne leen giñ naa ci màggaay yàlla bu ngeen ko takkul ma takk ko lan la Omar gis ci xale bu jigéen bi bu koo takk in kaana Omar laa yaraana fa rabb Omar yaraana xam nga jigéen boobu kon ku ko denc sa kër yan doom ngay am looloo tax gis ngeen xale bu jigéen boobu moom mooy maamu Omar ibnu Abdul Aziz xaamis xulafa urrachidin moo tax gis nga li yàlla subhanahu wa taala di wax suuf su baax gàncax gu baax suuf su baaxee yow miy jëmbat suuf baax nji mi ngay ji baax tool bi day baax waaye suuf si su bonee grain yi nga yor nji mi nga yor bon wallahi la ciy judd du baax loolu ngeen gis tey ci dëkk bi kon ayna allah ana yàlla fi amalina ci sunuy jëf ayna allah fi siyaamina ana yàlla ci sunu koor ayna allah fi salaatina ana yàlla ci sunuy julli ayna ya ayna allah fi ibadatina ana yàlla ci sunu jaamu yàlla yi ku nekk looy def defal muraqaba sa digganteeg sa borom muraqaba xam ngeen sàmmkat boobu mbokk yi baat boobu mu wax abdallah ibnu umar ayna allah lan la ko jural mooy kaanat lahu najatun fi dunya min zulli alubudiya wa satakunu lahu najatun min zilli nnaar yawma alqiyama baat boobu sàmmkat bi jëlee na ci ñaari njëriñ Abdullah ibn Umar bi mu ñibbisee ci dëkk bi ak waaru googu mu waaru ngëlëm googu mu gëlëm dafa suur lekk bi mu tiimoon jàpp ci sikkimam lépp taxaw ci naaj bu tàng bi muy dox solul daal di ñibbi naan qaala raa'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla sàmmkat bi nee na ana yàlla mu dem laajte kan moo moom xar yi ñu ne ko diw moo ko moom mu dem ci borom xar yi ne ko xar yi laa bëgg a jënd yépp bu benn des waa ji tegal ko prix mu fay mu ne ko sàmmkat bi laay laaj kan mooy sangam ñu ne ko diwa ko moom mu dem ci kooku ne ko jaay ma ko mu jaay ko sàmmkat bi sàmmkat bi yëgul lu xew ma nga ca àll ba ma ngay sàmm ndeke ba muy ñibbi si ngoon baat boobu jural na ko ñu goreel ko nekkatul jaam baat boobu jural na ko ñu may ko xar yépp mu moom ko moo tax mu ne baat boobu ni mu ko sauvé ci àdduna jëlee ko ci nekk sàmmkat jëlee ko ci ñàkk def ko patron bu am alal noonu la ko baat yi di sauvé yowmal qiyaama ci biir safara jahannam ayna allah alam yaalam bi anna allah yara laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama yàlla dara nëbbatuwul ci moom lépp mu ngi ci teg ak gisam moom yàlla yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur yàlla xam na li xol yi nëbb yàlla xam na li dën dënn yi denc yastaxfuna min annaas wala yastaxfuna min allah wa huwa maahum tey li garaaw mooy dañuy nëbbatu nit ñi te duñ nëbbatu yàlla ayna allah ñun ñëpp dañuy nëbbatu nit ñi ku nekk ci ñun looy def amul muraqaba maa fii muraqaba kenn ci ñun doo faale yàlla usmaan ibnu affan radiyallahu anhu wa ardaahu dafa bëri woon kersa di def muraqaba di sàmmonte digganteem ak boroomam ba buy tëdd su ñëwee ci néegam day tëdd néegam néegam la sa néeg koy moytu sa lal la koy moytu amma Usmaan ibnu Affaan buy tëdd day fay lam bi loolu mooy benn mu dugg ci biir mbàjj mi loolu mooy ñaar mu commencé simmeeku par benn benn kan ci ñun mooy def muraaqa boobu kan ci ñun mooy def loolu tey loolu tax yonente alayhi salaatu salaam tëdd njaganaayu ak loxoom saaba bu ñëw mu nuyu la benn loxo saaba bu ñëw mu nuyu la benn loxo te mu ngi tëdd njaganaayu Ousmane ne tëll dugg jàkka ji yonente bi dog toog daan ne kii mooy Ousmane yàlla da koo rus malaaka yi rus ko ko foog yonent yàlla bi rus ko lu lu ko may loolu mooy muraaqa ba boobu mu dem def ayna allah ana yàlla foog ñu delloo si yàlla ci sunuy jëf foog ñu delloo si yàlla ci sunu kanam foog ñu teg yàlla sunu ndeyjoor foog ñu teg yàlla sunu càmmoñ sunu kanam sunu ginnaaw sunu sunu sunuy tànk sunuy bopp foog yàlla nekk fi ñuy bàyyi xel ya lépp loo war a def sa xel na dem ci alam yaalam bi ann allaha yara aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله sunu borom subhanahu wa taala mi ngi nuy jàngal mbir yoo xam ne ci sunu bopp la war a leer yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستهي من النذر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني دوم ندي بنو نيمي يالا رجل دوم آدمي bu nu rus doomu aadama yi ñàkke kersa sunu borom subhanahu wa taala borom bi nee na nit ñi la ñuy nëbbatu waaye du nu nëbbatu yàlla te ñoog yàlla fu nu nekk yàllaa ngi fi wa huwa maahum fu nu nekk maa yakunu min najwa salaasa illa huwa raabihum fu ñu mën a nekk yàlla nee na maa ngi fa ñaar bu ñuy di diyeeyoo yàlla nee na ñetteel naa leen ñett bu ñuy deeyoo ñeenteel naa leen fu nu mën a nekk yàlla nee na maa ngi ànd ak ñoom mu ne li gën a doy waar dañuy fanaanoo yendoo di doxantoo dëkkandoo ak wax yoo xamante ne yàlla gërëmu ko te mu ngi ci dënn yi gaa yi denc allahu akbar yàlla nee na maa xam mbir yi lu tax mu ne dañuy nëbbatu nit ñi ñeme yàlla te mu ngi ànd ak ñoom is yubayituun maa laa yarda min al qawl ku nekk ci ñoom mu ngi ak programme bu nekk ci dënnam du programme bu yàlla gërëm waaye fas yéene ne bu jumaa jeexee fas yéene ne bu koor gi jeexee fas yéene ne bu jotee lii mu yaakaar fas yéene ne après dafay exécuter loolu nga xam ne yàlla bëgg ko is yubayituna ma la yarda min al qawl ñoom ñëpp ñu ngi programme ay wax ñu ngi programme ay jëf yu ñu rendi yu ñu daas dencal fanaanal te yàlla nee na programme boobu kat maa laa yarda yàlla gërëmu ko waaye gars yi nee nañ yàlla nee na gars yi danañ ko def fàtte nañ ne yàllaa ngi ànd ak ñoom te xamuñu ne wallahu bima yaamaluuna muhiit lépp la ci seeni jëf yàlla nee na dama koo wër ndomba wallahu min waraihim muhiit wa kaana allahu bima yaamaluuna muhiit yàlla nee na jëf yëg nit ñi laa wër ndomba kenn du rëcc baatu muhiit mooy wër ndombo xam ngeen ndombo ndombo daa wër ndigg ndiggu nit ki waxuma dafa dagan de waxuma ndombo dafa dagan laa wax dama ne ndombo ni mu wëree ndigg nit nga xam ne dafa tëju fermé wër ndëm ndigg li noonu la ñu yàlla wëree ndombo kenn ci ñun munu koo rëcc kenn ci ñun munu raw yàlla ndax yàlla daf na wër ndombo wallahu min waraihim muhit yàlla nee na ba ma leen di wër ndombo sax seen ginnaaw laa nekk ba pare wër leen xam ngeen mbër muy bëre ba pare ñu wër ko ndombo lu ngeen ci xalaat yëkkati ba ci kaw rek dóor ci suuf yàlla nag danoo wër ndombo te moo tax gis ngeen ba mu dàmbalee yëkkati ba léegi ku mu yëkkati ba ci kaw rek bu paree gaa yi suuli la ci biir bàmmeel yi parce que kenn ci du ko rëcc wallahu min waraihim muhit isa xalawta bi riba saa yoo fanaanoo dara soo wéetee soo nekkate ci barab gësoo kenn nga décider ci sa xol wala nga programme lu jaaduwul wala nga nekk ci lëndëm sa bakkan di la xalaat loo du bon di la xalaat loo mbewte jadd nga la waay rusal yàlla nga la waay rusal yàlla neel rus naa sama borom lii duma ko def yow kenn yaa nekk xol bi xel mi jëmm ji di programme lu jaaduwut nga la waay xeexal ak ñoom ne leen dama rus sama borom ngalla waay ne leen dama rus sama borom moo tax gis nga yowmal xiyam su cër yi waxee ba pare loxo wax tànk wax bët wax lépp wax malaaka bi nekk ndeyjoor ne man yàlla maa ko doon bind ana katabtu maa ko doon bind malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu maa ko doon bind maa ko teewe woon kii ne maa ko doon bind kii ne maa ko fekke xam ngeen yàlla lu muy wax ana araftu wa satartu xamoon naa ko ma nëbb ko waaye tey fii ci alaxira laqad istadda gadabi ala man qalla xayaauhu alayya képp ku ma doon ñàkke kersa tey mbugal mi dina metti ci yow képp ku ma doon ñàkke kersa mooy lan mooy rus nit ñi ñeme yàlla loolay li am tey rus nit ñi su nit ñi teewee nga normal defar sa lépp yaag yàlla nga ñàkke yàlla teggin mbokk yi nañu rus yàlla saa yoo bakkan bi programme tee ci lu bon di la woo ci lu jaaduwul fastahyi min naziril ilah rusal gisu yàlla di tegu ci sa kaw wa qul laha waxal bakkan bi xeexal ak moom poñe ko ne ko inna alladi xalaqa zalaam yaraani ki bind lëndëm moo ngi may gis waaw ki bind lëndëm ki bind lëndëm ki bind fi la kenn dul gisee ki bind weetaay kii sa boroom su la bakkan bi waxatee defal lu bon neel bakkan bi ki bind lëndëm mi ngi may gis waaw inna allazi xalaqa zalaam yaraani ixwata al iman la budda bil muraqab yaalamu annahu yaalamu sirra wa axfa wa annahu yaalamu alxarakat wa sakanat yaalamu ma yusirru wa ma yuclin wa ma yuzhiru wa ma yubtin yaalamu sirra wa axfa sunu borom subhanahu wa taala xam na li nëbbu xam li feeñ xam li dal xam li yëngu moom yàlla dara amul lu nëbbu ci moom foo mën a ne sunu borom subhanahu wa taala ay gisam mu ngi tegu ci yow amul lenn lu nëbbu xam na lii jax-jaxi ci dënd doomu aadama yi lan moo yàqal iblis xam gi yàlla xam la doon was-was di jax-jaxi ci dënnu iblis keroog bi ko yàlla ne si jóotal mu lànk nekk ma ngay xalaat ci xolam naan ana xayrun minhu maa ko gën ba yàlla ne ko defal mu lànk yàlla woo ko ne ko maa manaaka an laa tasjuda is amartuk lu tax nga lànk ba ñu sujjóot loolu mu doon xalaat ci xelam loolu la génne qaala ana xayrun minhu mu ne maa ko gën lu tax xalaqtani min naarin ndax man danga maa bind ci safara wa xalaqtahu min tiin moom nga bind ko ci ban safara moo gën ban kon kii duma ko sujjóotal allahu akbar xoolul ki santaane ndigal ki joxe ndigal xoolul kooku moom lan la xool liñ ko digal fekk yàlla moom bu santaane moo tax bu fekkente ne iblis moo bañ santaane yàlla alku doomu aadama nekk ci kaw suuf mbokk jullit yi yéen ñi julli si jumaa ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti ba ci biir kër gi ak ñi dégg kàddu yi iblis ñaata santaane la bañ iblis ñaata santaane la bañ benn su jootal mu bañ yow ñu ne la jullil nga bañ wooral nga bañ muural say awra nga bañ ah ñaata nga am man na ñett de tekkee benn la am yàqule aadama ak awa benn lañu am yàqule wala taqraba hadihi sajara fa takuna min alzalimin fa azallahuma alcheytanu anha فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين aadama yàlla da ko ne bul jege garab gi yàgg sa soxna ñu lànk dem laal ko yàlla dàq leen ci biti iblis benn la am yàlla dàq ci yërmandeem aadama ak awa benn lañ am yàlla dàq leen waaye ñoom la leen musal mooy dañoo tuub iblis lànk dëgër bokk fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat fataaba alay innahu huwa tawaabu rahim aadama ak awa ñoom tuub nañ yàlla baal leen iblis dëgër bopp waaw fu ñuy dóore borom benn bu borom borom ñett bu fa teewee fu mu jëm ñun ñi julli si ku nekk ñaata nga yore sikk nekku ci ne ay conteneur bàkkaar lañ yor te ragaluñ de yenn saa yi nga gis ku def lu xaraam ba pare naan di ko xeeb waaye yow sa mees yi nag mu yëngal bopp bi ne di ko xeeb maa ko def nii de waaye dama koy xeeb la ilaha illallah ci Sénégal nga gis ku def bàkkaar ba pare di reetaan waaye li nga def nag waaye nga gis gars yi di la tàgg misaal ku ëmbal xale bu jigéen nga dégg ñu ne muy gërëyee waa ji di dox ndeysaan di génn dënn sol kilot door ay kawas door ay chaussures fermées ah ay tërëni di dox ci diggu mbedd bi door kabam gars yi daal ma gis ngeen gaan bi mu naan nii di ngand ngandalu parce que lan la def dafa ëmbal man faala zanban yadhak yonent bi nee na daxala naar wa huwa yabki ku def bàkkaar bi ree bëccëg yi nga ñëw nga dugg safara di jooy lu ko waral nag mooy ñàkk xam mbokk jullit yi jumaa ji ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti démb dañ ma indil benn jigéen joo xam ne dama fàtte këyit yi bi may ñëw sama kër bi ma ñëwee ba dugg ci jumaa ji laa ko fàttaliku dama bindoon numéro téléphone am bindu turam bind dëkk bi mu nekk ndaw si xam ngeen lu tax ñu avaar goo ko muy woor suba ba ngoon moo bërëm këram du ñu ndogu c'est parce que dafay niqaab day muur kanamam day muur kanamam waa dëkk bi xamuñu loolu ñu abandonné ko moo njabootam dañuy woor ba ngoon du ñu ndogu parce que jëkkëram ma soxla woon feebar jàpp feebar jàpp ko mënatul liggéey maçon ñu hôpitalisé ko juróom benn yoon hôpital bi mu génnee ñu tere ko lu diis mënatul liggéey lu diis mënatul am lu njaboot gi dunde amatul ku ko dimbali li doy waar mooy ndaw si étranger la mu ngi ko takke woon Côte d'Ivoire indi ko waaye tuub na de gis na diine de parce que day muur kanamam waaye lan moo tax nit ñi gedd leen c'est parce que dañuy dund alquran ak sunna moo tax gaa yi mere leen ba ndaw si wallahi démb dañ ma ko indil may wax ak moom di ko delloo si yàlla ne ko yonent bi da daan toog weer cin du tàkk këram mu ne ma wallahi damay toog ñaari weer cin du tàkk sama kër sama xel dem ca yonente balam doon dunde ma ne ko soxna si lu ngeen di lekk mu ne bu guddi jotee ñu naan ndox tëdd la ilaha illallah la ilaha illallah mu ne bu ndogu jotee dañuy naan ndox tëdd bu ñuy këdd dañuy naan ndox tëdd la ilaha kenn mu ne kenn kenn dëkk bi yëpp kenn amu ci ku ñuy jox sax benn tàndarma ndax koo wax ñu ne kii dafa ay gaaf li muy dugg nii li mu dugg nii moo moo tax mu al ñu fan lañ jëm ay jullit yu gëm yàlla nga xam ne alquran moo ñu ko wax wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid ay jullit nekk ci biir réew mi di woor ba ngoon duna am lu lekk ñun ñëpp ñu denc ay ndogu suñu kër ñun ñëpp ñu denc ay dépense suñu xel du dem ci ñooñu jullit yooyu ñun fan lañ jëm yonent bi nee na laysa minna man baata shab'an wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku fanaanoo dépasse suba sa jul sa mbokk jullit mu ngi xiif ndaw si ne maag samay doom dama yenn saa yi ma am ceeb ma sommi ba pare du am suukar du am soow ñu lekk tëdd lépp ñu ngi ko diis suñu borom parce que xam na ne nattu la rek day jàll. ma ne ko an sa borom kër ba ngay génn di dem mu ne ma moom mënut a mënut a tukki mënut a dem fenn parce que ya dafa feebar man maay lijjanti njaboot gi. te li ko nit ñi meree mooy nee nañ dafa aay gaaf parce que dafay muuru muuraayam bi dafa ëpp bay muur kanamam loolu bidaa la loolu kenn xamu ko. loolu ay gaaf la loolu mag ñi bëgguñu ko nee nañ ko mag ñi ñoo leen alag yaag sa borom kër yan mag yan mag yan mag ñoo ko alag nañ ne dañoo ñàkk dégg diine diine mooy jigéen bu dara feeñ ci yaramam lax dari bii ñu jàng ci réew mi loolu la wa waxuma sax ñu dem ci buxaari ak muslim lax dari al mar'atu kulluha awra maada al wajh wal kaf jigéen lépp awra la du loolu lañ jàng lépp lañ wax boroom xam-xam yi ne même kanam bi ci awra yi la bokk ñenn ñi ne déedéet wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu feeñal lu dul loo war a feeñ Abdullah ibnu Abbas mu ne kanam gi mun na feeñ waaye ñoom ñu roy ñoom yaay Aïcha roy waa kër yonent bi ñoo doon muuroo noonu ñu muur seeni kanam parce que dañoo gëm ne alwajhu zina kanam taar la ñoom loolu lañ gëm est ce que loolu alkande la lu yonent bi wax waa këram doon ko doon def nit ñu baax ñi di ko def mu nekk ay texte naka la ay nit di waxee ne ñii dañ leen a alak c'est parce que lii ñuy def mu ni moo tax loolu tax ñu bëgg mbokk jullit yi ñun ñu julli si juma kenn ku nekk ci ñun dërëm ñaar dërëm fukki dërëm bu mu mun a fàtte ngir yàlla ngir soxna soosu ak waa këram ak borom këram mu def ko ngir yàlla incha allah bi iznillah yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazimna bada almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله